jërë ngeen jëf mbir mu doy war mi ñu gis démb ci réew mi di république dominicaine ci la l'observateur xëy ubbil yéenekaay bi benn nappukatu dominicaine bu toll ci fanweeri at sa moo doon dox ba yem ci genn gaalu looco gu teer ci waaxi Rio San Juan ga ca république dominicaine waa ji yër gaal gi fekk ca fukki nit ak ñeent yu faatu ba seeni yax rekk des ñoom ba mu xoolee xool seeni bagaas l'observateur ne nañu ci la ñu gis ci ñoom ay identité yuy wane na ñoom ñi ñu fekk ñu faatu ci biir gaal gi Mauritanie ak Sénégal la ñu dëkk maanaam ay sénégalais lañu ak ay mauritanien seeni mi ngi tolloon ci ñaar fukk ak ñeent jàpp fanweer ak ñett ba ans fekk nañu ci seeni bagage fukki sase ak yoo xam ne budul cocaïne di héroïne éléments yi enquêteurs yi gis ca gaal ga wane na ci lu amul benn sikki sàkka ne gaal gi gànnaar la déparé woon enquête dina kay ne ko waaye teere ji ca waaxi Rio San Juan ga ca république dominicaine ak fukki néew ak ñeent journal quotidien xëy di dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba bind ne fekk nañu ci genn gaalu looco gu teer ci république yi ñu fa fekk ba génne leen tëral leen ci tefas gi muur leen ak lu weex journal public miy laaj kan mooy dimbali ndaw ñi seen yaakaar tas xiti li leen ba ñu mën a am ci luñ jàpp ba ñu mën a bàyyi gaali loo ci yu ñuy song bay faatu ci géej gi dolli na ci moom yéenekaay bi di la public dañuy xibaar ne fukki squelette ak ñeent yi ñu fekk ci gaal gi fekk nañu ci ñoom ay papier yu tax ñu xam fa la dëkk am nañ ci ñoom yoroon ay téléphone portable dund téemoñu nee nañu ñoo ñetti équation càng yi sëkkatal Jomaay Fay ak Sonko la leen génne ca kaso ba ñoom am na Ousmane na ko bàyyi mu dem waxtaane ji ak Sonko ngir ñu wut solution ci situation bi ndax Macky Sall dajale woon wax leen jumaam ngir bis bu demee ba di fi jugee mu bàyyi ci Sénégal jàmm bi Ousmane Yara defee proposition bi yéenekaay bi nee nañu Macky Sall ànd ca woon waaye Mariam Faye Sall moo ci jàpp wax ak moom dóor ko séance ba tax Macky Sall mujjee nangul li ko Yara proposé woon ci la woowee maître Aïssata Tall Sall mi ne woon ci yooyu la jamono ministre de la justice ngir mu lijjanti l'homme des bi di Ousmane Yara a permis de visite ngir mu mën dem seeti Ousmane Sonko ca kaso bu Manuel yéenekaay bi nañu bi yombal ndax daa demoon doon yóbbul Ousmane Sonko añ daje fa ak Ousmane Yara fekk ñoom ñaar xamante nañu bu yàgg condition yi leen Ousmane Sonko tegaloon mooy ñu libérer détenu politique yëpp tàmbalee ko ci Bassirou Diomaye Faye loolee moo indi loi d'amnistie bi Macky mi def loolee point acte mi ngi ñuy wax ne laata mu fi jógee la salfaañe carte ba yàqalaale ñaar ci kàngami politique yi ci réew mi muy Idrissa Seck ak Barthélémy Diaz journal bi dem ci ba sampoob laaj laaj wax nañu ne société civile bi ci réew mi bari na ñoo xam ne seen bëgg-bëgg mooy ñu boole ko def ko benn ngir rationaliser calendrier électoral bi rapport finalu assise fi doon def jëmee ko ci wàllu justice journal L'Info mi ngi wax ne ñàkk déggoo gi mi ngi ci réforme gi ñu bëgg indi ci conseil supérieur de la magistrature gi li ñu ci bëgg mooy ubbi ko dugal ci ñeneen ak it li ñu waxagul leer ci ndax président de la république dafay continuer di présider El Hadji Malick Gaye moo doon réunion ba ca digg ba mu dagg réunion ba ne gars yi continuer leen ndax dama war a dem primature dañu ma woo léegi ne ma climatiseur Ousmane Sonko dafa paan